yéen ngeen équipe bu Sénégal ngeen suñuy gaynde di sunuy doom wara a dem jogante ji ak seeni moroom ak seeni nawle ci Allemagne Sénégal nag suñu politique bii mooy suñu juróom-benneeli yoon ngeen am fa ay ndam yu bari moo tax maa ngi féliciter seen encadrement di féliciter équipe bu ministère de sport yëpp mais politique bi nga xam ni président Macky Sall am na ko mooy politique bi ñu tuddee inclusion mooy Sénégal ñëpp dañ ko bokk. mais ginnaaw ci biir ci ginnaaw concept boobu li ci nekk mooy fexe ba doomu aadama yëpp ku ci nekk lii sa cër lii sa àq lii sa yelleef ñu jox la ko kon yéen bu ngeen dee ay doomu Sénégal ngeen su di suñuy doom war a dem joŋante ji dëgg la. xëy na nattu dab dale kooku mbiru yàlla mais ngeen xam ni réew mi kenn du ko defar te bokk leen ci ci réew mi ngeen bokk kenn ëppalewu leen ci